rawatina ñi ñuy topp ci seen seen GMT TV di télévision bu Grande Mosquée de Touba ñi ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen balu ak di leen ndokkeel di am mbégte bu baax a baax di ñëwaat ci seen émission bu am solo bu mag boobu nga xam ne moom la ñuy tuddee gàggantiku gàggantiku nag euh, day émission boo xam ne dañ ko aj ci ay laaj ay laaj yoo xam ne dafa yitteel askan wi ci seen wàllu diine ak ci seen wàllu aada loo xam ne dana leen jariñ fii ak fële mu doon émission boo xam ne nag dañ ciy ànd ak ay boroomi xam-xam ci indi ay laaj yoo xam ne daf na dana yitteel nit ki ci mbiri diineem ak mbiri àddinaam euh, xam ngeen ne tamit am na bunt bu am solo boo xam ne moom lañ nekkoon ci émission bi jàll muy lu aju ci laab laab nag dafa doon mbir moo xam ne Euh, dafa munta ñàkk ñu indi ci ay laaj ngir mooy li nga xam ne nit ki jaamu gu muy mën a dugg su fekkee ne defewu ko defin wu baax jaamu ga dana des loolu moo tax jataay bii tamit ñu ajaat ko ci laaj ngir dalal boroom xam-xam bu mag nga xam ne fii lañ ñëw ci ndaam daarul xalimul xabir dalal sëriñ Mbàkke Abdourahmane sëriñ Mbàkke Abdourahmane nag ngeen miin ko bu baax a baax ci seen seen GMT ngir waxtaan yi ak fatawaa am solo yi nga xam ne dana ko fiy def tey jii nag moom lañ ñëw ngir e, fas yéene séq ak moom laaj yu aju ci laab tey nag laaj bi nga xam ne moom lañ indi tey ngir laaj ko ko maanaam sarti laab ci boppam moom lañ bëgg mu faram fàcceel ñu ko e, indil ñu ci e, loo xam ne danañu mën a jariñ ñu mën cee jariñu bu baax a baax a baax kon Serigne Mbacke ñu ngi lay nuyu bu baax.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 di leen jaajëfal ci liggéey bu am solo bi ngeen di liggéeyal diine ci keppaaru sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu ñaan sunu boom dafa leen ci ay ndam yu bari am na solo lool taxaw ci luy tax nit ñi xam seen diine ak di ko dund te mel na ne waaru am solo bu ngeen ci taxawee ëtti xam-xam yi ngeen ubbi ci la bokk ginnaaw bu ñu rafetloo seen taxawaay ngir jéem a tontu ci laaj boobu nga laaj lu am solo wax nga dëgg sëriñ Abdou Lahad laab ndax ab julit moom lépp lu ko boroom sant rek wooye fatut kon bu dee ku ñor dana bàyyi xel loola te lu suñ borom nag ay santaaneem lépp ci jàmm lay dellu amu ci luy jariñ yàlla amu ci lu koy wàññi saa boo defee ndigal yaay jariñu saa boo bàyyee tere loolu am na solo ñu di ko xam kon di ci laayante biir day am solo laab nag yu am solo yi la bokk noonu ko waxee nag am na charte te mat naa xamit nag ndax day tax jaamu yàlla gi mën a nekk mën a wér charte yi mën nañoo wax ne fukki charte lañu ak ñaar yoo xam ne dañoo séddalikoo ci ñetti xaaj ñetti xaaj benn xaaj bi ñeent la bi ci des ñett lañ bi ci des juróom lañ xaaj bu njëkk bi mooy charte yii tax laab war nit bu ñu waxee laab fii nag dugal na jàpp dugal na sangu dugal na tiim xëy na am na feram-fànc yu ndaw rek yu ci tiim wute ñoom waaye sart yi ñu wax ñoom ñëpp ñoo ko bokk jëmmi laab moo am sart yooyu sart yi war sart war mooy sart yi tax jëf ji war nit ki nga xam ne moom fii ak sart ba amagut jëf ja waragu ko sart boobu nag warut nit ki mu di ko wuti li ñuy tuddee sart wu jóg ndax sart ba tey baax nañu ñu leeral ko mooy loo xam ne bu amul jëf ji du ci bit lay nekk moom loolu la wuteeg rukkunu rukkunu muy a ponk ci jëf ci biir lay bokk masalan julli am na rukk arkaan am nay surut sart yi ci bit la ñu nekk ci misaal euh, jàpp mooy laab ak jublu xibla ay sart lañ ci julli waaye rukkoo ay sujjóot ay arkaan lañ ci julli laab bi ñuy waxtaanee kon li ñuy wax sart la mooy nekkul ci biir laab gi waaye nag bu amut laab du mën a am bii benn bu amut laab du la war wala bu amut bu la laab waree du wér kon moo tax ñetti xeeti sart la sart yu tax julli gi aw laab gi war nit ki maanaam mooy tax mu war ko ak sart buy tax <clears throat> laab gi wér nga xam ne ginaa bu mu la waree ba noppi bu sart bii ñuy tuddee sartu wér ñëwut loo mën a dafay taxul nga laab ak nag sart yoo xam ne daa boole ñaar yëpp bu ñëwut ju laab gi warut la boo demoon daf ko it du baax kon ñett yooyu la séddale ko bu njëkk bi mooy sart yi nga xam ne mooy tax laab war nit wax naa léegi nag la sart la boo xam ne nit ki waru ko wuti moom day toog rek ba yàlla teg ko loolu la wuteeg sart sixa sart bi tax jëf ji wér yaa ko war a wuti yow ñett euh, ñeenti sart la yi tax laab war nit bi ci njëkk mooy mu nekk baaleex nit gone gone laab waru ko laab waru ko kenn du ko forcé ci nga war dem jàppi mm-hmm. donte nañ ko xamee ci diine bëgg nañ yu baax yëpp bu ñu amee juróom-ñaari at ñu tàmm leen ko digal bu ñu amee fukki at ñu leen bàcc bàcceel sax ngir ci tàmm lu ci dul woor kon ay julleeg liy tax julli wér mooy jàpp bëgg nañ bu ko nekk amee juróom-ñaari at ñu di duggee ci juróom-ñaareelu atam may bu mattalee juróom-benn at ñu di ko diggal su duggee ci fukkeelu atam ñu di ko ci sax duma bu fekkee ne duma yi dana jariñ waaye nag nañ xam ne laab warul warul gone wóorul euh, kon euh, kii kon kon mooy mooy mooy ba mooy ku majeur kon ku majeur gut la booru loolu nag sartu wujub kese la bu laaboon dana baax ndax sartu wujub kese nekkul fii sartu sexa wujub kese la waru ko de waaye bu ko defee baax benn ñaareel ba liy tax laab war nit mooy waxtu li ngay def waxtum tàbbi masalan bu ñu xëyoon suba yor-yor tisbaar jotugut laabu war jullit ndax tisbaar jotugut bala laa laabu war tisbaar jot te fekk laaboo waaye nag charte wu kese la bu la neexoon xëy jàpp di nekk tisbaar ndax charte wu jub la du sartu sexa waaw bu fekkoon tane dañ naa la sartu sexa la kon féeg waxtu waxtu wi tabbiwul du baax loolu nag ci tiim moom tabbi waxtu moom la ci kon woote na fi sartu wujub la sartu seexa la ma waaw faaw waxtu wi tàbbi laab gi door laa war faw waxtu wi tàbbi nga def ku mu door a wér kon mm. wóote waaw du dañu xaar moom da ngeen di waxtu tàbbi nga def ko jóg bu dee jàpp nag sañ ngaa def di xar bu dee eh, sangu it noonu ñetteel ba mooy sam jàpp toj nit ki bu am jàppam tojul jàpp waru bu sangoom yàquwut sang wóor ko euh, masalan day gis koo xam ne naa la may ma yeesal jàpp dana màggat màggat gi nag ñu bàyyi xel ne du yàgg màggat gi mooy li taxoon ngay jàpp def nga ko ci timis jot na nga jàpp jël timis bu gee jotee jàpp màggat na waaye boo jàppoon ci suba ginnaaw bi nga jullee suba jàpp ngir waxtu wi ñëw bu tis ba accès jàpp mu yees la feek tojut kenn santatu la jàpp waaye nag bëgg nañ bu jàpp màggatee ñu yeesal ko sopp nañ ko waaye warub saa bu fekkee jàpp bi defoon nga ci li tax ñu jàppalu moom sopp nañ bu jeneen jaam jaamu yàlla ñëwee guy laaj jàpp wala mu laaj laab sopp nañ nga defaat ko waaye warul la nag ndax sam jàpp tojul kon lu yàgg-yàgg feek tojut jàpp jàppat warul nit ki euh, loolu mooy ñetteelu sart bi ñeenteel bi di te mujj ci sart yi tax euh, laab war nit mooy mu mën a laab man ko koo xam ni amul lenn lu muy laabe laab waru ko waaye yoo xam dañ ko fa yeew loxo yi vingt quatre heures kooku laab waru ko ndax mënu ko mm-hmm. mënut jàpp mënut tiim yëpp pour dara mag ñi daanaka misaale ko gay na tongaloon ci kaw garab mm-hmm. fekk jàpput mm-hmm. mënta tiim ci kaw xob yi te bu wàccee yàlla tane mm-hmm. kooku dañuy wax ne mënta laab kon waru ko kon bala mu laa war day fekk nga man ko ku wéradi ba nga xam ni mënta yëngal benn cërit ci genn anam te amul ko ko defal <coughs> wàcc na ko dañuy wax ne koo xam ne dañoo daggoon ay loxoom te amul gisul kenn ku ko jàppal wàcc na ko kon day fekk nit ki man ko kon ñeenti sart yooyu sëñ Abdou Lahad mooy sart yi tax laab war nit ki na doon baalix na majeur na ko man na fekk am jàppam toj na waxtu yu tàbbi yii daal bu dajee ci nit ki war na dem labi moom yii ñu wax yëpp nag amu ci benn boo xam ne nit kee ko war a wutal ba foofu da ngay ba mu fekk si la rek waaye sa yoon wu ci yow yàlla koy dogal ci yow mu war la dogalu ko ci yaw waru loolu mooy mooy xaaj bu njëkk bi ñaareel bi mooy moom ñett rekk la yi tax laab wér ginnaaw bu la laab waree baa leex nga waxtu wi tàbbi na sam njàpp toj na am nga loo laabe léegi nag sart lu tax nag li nga def baax ba ca jiitu mooy nga doonu jullit dañuy wax ne li gën a dëgër ci wax yi mooy yéefar yi mu xaataboona bi furuu sharia maanaam julleeg war a yëpp war na yéefar yi ni mu ñu waree waaye nag laa yasixu minhum illa bil islam yaamu yàlla du wér ci ñoom te tuubuñ kon fi ne bu yamal xayam bi ñu ni mbugal ci kéefër ga dañ leen mbugalaale bañ a julli bañ a woor ak bañ a laab yëpp ndax lu leen war tañ bàyyiku la kon balaa mën a wér ci ñoom ku yéefar bu ñëwoon di jàpp jàpput boo doxoon ni ñu war a jàpp ñëpp comme ni ko julli ñu defee deful dara ndax al wudu la yasixu illa bil islam kon sart bi jiitu mooy waa ji jàpp na doon ab jullit kon moo war da doon yéefar bi moo war dem tuub dugg ci islam da ko war moom daa war a musal boppam ci sawara ci dugg ci diine loolu mooy sart bi jëkk ci lii tax laab gi wér kon sangu tiim ak jàpp yëpp bala wér ci ci nit na fekk mu dib jullit waaye ñi du jullit kenn du laab loolu ndax mënuñoo laab mënta nekk ñaareel ba adamul xaayil la ko naar lu am solo la sëñ Abdoulaye loolu mm. rawatina suñ mbokk jigéen ñi ak sax ñu ñëpp daanaka yow miy jàpp cër yi la raxasloo mm. bu fi xaayil nekk lu dox sa diggante ndox mi bu fi nekk mm. sëñ daara bi bind encre encre ci taq fii ba koy ndax day lu am jëmm ba nga xam boo jàppee ndox mi laalul foofa ca kaw daa jëla jaar jàll mhm. kon ron ron foofu ci yar cër boobu tooyul te daa war a tooy mu ci laa ñëw si mhm. ko imaayu imaay jëmm la mhm. yu tafu fii te fii daa bokk ci fa war kon ko imaayu boo jàppee jàpp mu baaxut boo songo ca ngay li baaxut ba tey ñiy liggéey ci peinture nañ bàyyi xel seen yaram taq peinture di ko jàppale ndax foofu mu taq foofu du tooy bu tooyut njàpp mu bu dee cangay cangay la baaxul kon bépp màdda boo xam ne dafa am jëmm di tafu ci kaw yaram saa bu tafoo ci yaramu nit ki bu ko jàppale ba mu sang waale ko te dañut cangay la baaxul bu dee jàpp njàpp mu ndax dafa am lu dox si digganteeg li waroon tooy te tooyut jàpp loolu lu mat lu mat bàyyi xel la nit ñi war ko seetlu waaw ab taar taarub àdduna jërut nit ki taxoog sobe loolu nag bokkut ak fuddeen. ouvrier yi. waaw dañ koy liggéey. Hmm. war nañu ma jël matuwaay yi fexe bu mu taq seen yaram. Hmm. baaba bu ñu noppee nañu wut loo xam ne boo ko ci defee mu day wala hmm. ngaa jàpp loolu nag bokkut ak fuddeen. fuddeen couleur la. aw melo la waaye du jëmm ju tafu ci dox diggante yaram wi ak ndox mi. loolu la wute. di ko mën naa fuddenu wew xonq wala mu mel neneen te teewul bu jàppee mu baax. waaye bis bu ci defee. imaam euh, yi bu jàppee jàpp baaxul loolu nañ ko bàyyi xel kon balaa laa ba wér na fekk sa sa cër bi diggante cër bi ak euh, kii bi dara doxu fi diggante cër bi ak yaram bi dara doxu fi loolu di bàyyi ko xel euh, ñetteel bi mooy ngay laab di def lu dàqoon teeg laab Hmm. loolu xëy na ñu bari mënuñ koo tasawur waaye mën naa nekk. Hmm. masal dañ daa wax ne nit ki bu tëy woon ci awraam. Hmm. di jàpp. laal awra day tojum jàpp. mi ngi jàpp waaye toj. mi jàpp muy toj. mooy yow dañuy wax ne balaa jàpp mi wér bul daf luy dàqoonteeg. jàpp mi. gi beneen anam boo xam ne mën naa am sax bu baax a baax muy nit koo xam ne moom daa den ak soxnaam bëgg a bànneexu ci soxnaam wéeru ci moom di jàpp. te ci wéeru gi laal yaram bi mu koy laal bànneexu la ci jublu xam mm-hmm. bokk na ci toj njàpp laal jigéen jublu ci bànneex wala nga am ci bànneex mm-hmm. soo ko defee njàpp mu moom nag mu wéeru ci kawam ngir bëgg bànneex ba noppi di jàpp mm-hmm. bu ko defee yàqu na lu mu fa def yàqu na lu mel ne kuy sangu tamit soxnaam di ko raxasal ko di ko def noonu di ko laal te jublu ci mu yëg mu jublu ci bànneexu wala mu am ci bànneex baaxul xëy na bu dee bu dee bu dee bu dee comme comme jàpp bu dee laal laal moom ci cangaay du yàq bokkut ak janaaba du hmm. waral janaaba hmm. waaye am jàpp lay waaw waaye jàpp moom jàpp moom hmm. ku soxnaam doon defal mu jàpp mu di ko laal te yëg bànneex wala mu jublu bànneex na xam ne jàpp mu baaxut kon ñett yooyu mooy yi nga xam ne mooy tax jàpp wér yooyu nag nit ki war a wuti yaa war doon julit war a fexe ba fi ndox mi war a àgg bu dara dox ci diggante bi lu ko fa tee àgg bul daf jamono yi ngay jàpp loo xam ne moom jàpp dañoo dàqonte jàpp di génn ngelaw jàpput moo tax ci biir njàpp mi foo ko sobe dabee rek day tàmbaliwaat njëkkoon daf lépp day yàqu loolu it baax nañu bàyyi ko ñetti sart yooyu mooy tax laab mën a wér kon loolu ci jàpp ci sangu ak ci yi nga xam ne boo ko ci bàyyee jàpp ma di wér tamit ci suruti si yi lañ koy dugal wala. maanaam masalan lu mel ne ngay jàpp am foo jël wala li ñuy wax euh, ab diggante bu tooyut wala ñàkk ëmb dajoor yi wala yooyu. déedéet foofu xam nga ab rëkkund la. raxas loxo. rëkkund la ci ci jàpp. waaw bokk ci cër yi ñu war a raxas. Hmm. boo ko raxasu daa manqué benn rëkkund. waaw kooku moom du sart waaye rëkkund la sart day génn. waxoon naa nag ci njëlbéen day génn jëf ji ci bit lay nekk ba noppi nag di di di tënk jëf ji waaw waaye kii di biir li aju ci biir moom sëlmu raxas loxo yooyu ay ponk lañ jëf nag boo bàyyee ponk ba du baax loolu bu ñuy buy waxtaanee ponk yi jaamu yàlla ponk laab boobaa dana ci ñëw kon ñett yooyu la euh, xis xis bi ci mujj mooy ñetteel bi mooy sart yi nga xam ne moom ñaari yëpp la boole xam nga yee sarti wujub kese la si sexa kese la hmm. yi ma bëgg a wax nag ñaar yëpp la hmm. bu dee sarti wujub kese hmm. mooy jëf ji warut la waaye boo ko defoon bu baax gone gi jàpp wóoru ko waaye jàppoon bu baax waxtu jotugut jàpp wóoru la waaye boo jàppee bu baax sartu sexa it sexa kese la waaye nekkut sartu wujub nga xam ne am na koo xam ne waru ko waaye bu jàppoon mu baax mais sartu sexa bu daje woon ba jàppee mu baax donte jàpp mu warul la woon ci duxul waxtu fekk waxta la waaye boo jàppee te sàmmoonte ñett yi islaam adamu laxel adamu naa fi jàpp mu wër na dégg nga bii nag mooy yi nga xam ne juróomi juróom lañ boo xam ne sart la yoo xam day tax jëf ji faw mu am jëf ji door laa war ba noppi it faw mu am jëf ji door a wér nga xam ne bu bi amut jëf ji warut la te boo ko defee it baaxul xam nga loolu wuteeg sàrte wu jëf yi jëf ji warut la moom waaye boo ko defee bu baax yooyu bëgg a wax nag warut la boo ko defee du baax bi ci njëkk mooy am xel ni ku tàggu sago wala ku daanu kiris wala muy xëm wala mu ne ci xaala boo xam ne yëgutul am xelam nekkatu moom bu jàppoo ni jàpput jàpp waru ci jamono jooju boo ko defoo ni baaxut bu ko bu ko ni jàppaloo nit làggu du tee bu ximmee dana jàppaat. loolu lu am solo la ku xam. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw ku am dem. xam nga ki mën na xel mën na dem mu ñëw di jàpp nit ñi def. Mm-hmm. jàpp waru ko. dañoo sart ci jàpp mu am xel. ànd waru ko de. bu ko dafay taxul mu làpp. kon ku yaraw mu naqar noonu bu ñu fa joxoon ba mu jàpp it su ko jox fu kaamil jàpp waru ko bu jàppee jàpp mu baaxut mooy bu njëkk bi ñaareel ba. xëy na boobu moom buloo ko daaw lañ koy wax mooy ne nga yëg ne lislaam am na yàlla du taklif te yónneewul ku newoon barab boo xam ne day adduna yëgoo ne yonent yàlla Muhammad am na risaalu islaam wàcc na kooko jàpp warul ko bu jàppoo du wér xëy na boobu bu jëtu sori bi ci tegee mooy jigéen jigéen ko moom bii na mucc ci deret ki toll ci gis baax wala mu am doom ànd ak meret laab waru ko bu laabee du baax loolu mos a yow Malick masalan kooku bu jàppoon mu jëru jàpp masalan ci misaal day gis nit koo xam ne daa jaxasoog borom këram xëy war a sangu fërëg mbërëg dikkal ko jëru muy sangu day ndax bu sangu yi tax mu set hmm. day bàyyi ba set ci bërëg bi sangu yéene wala ñaar yëpp wala mu yéene benn bi ngir mu wutu bi ci des ñu def baax na. loolu defi ne kii point bu am solo la boo xam ne xam na ñu bëri duñ ko bàyyi mhm. foofu jërutu ko ndax kii gis baax laab waru ko. Mhm. ndax mënut a laab bu ko defee du baax faaw mu set laab doon ko war kon bu fi amoon defoon luy toj jàpp mi bëgg wàcc jàpp far mu rek dëkkal ko it mook mu defoon luy waral sangu ñooyam mhm. day néeg ba set bu ko defee door a sañ a def door a def loolu. bi ci topp mooy ñàkk man ànd ak sa sago kii nelaw jàpp wóoru bu ñëwoon jàppal ko du baax nit koo xam ne dafa ne ci xaala boo xam ne jàpp na ba noppi waaye yëgul na jàpp na booy jàpp sam xel daa war rek nga xam ne lii ngay def ak jaamu yàlla lay yaa koy yéene waaye lañ gis ni dafa na puñ ko daal di ne ko saa yi da jàpp mu ne fan laa doon jàpp loolu yëguma ko hmm. ba bu ko ndax xelam néew fa lam dafa baaxut nga bi ci mujj mooy nga am lu doy cim ndox pour sangu ak jàpp na fekk nga am lu doy cim ndox nanguwut ñu am tuuti ndox ne naa raxas loxo yi kon sëlmu li des wàcc na ma déedéet dangay bàyyi ndox dem tiimi kon loolu yëpp day waral ñaar yëpp waaw moom warul la fi ne ndax amul ndox mu doy boo ko jëfandikoo la nga am ko su néew jàppoo labo kon ngir ngir ngir ngir jàpp lab war la dangay am lu doy ci ndox ba noppi euh, euh, moo moo mooy tax am lu doy sartu wujub la sartu sexa la boo amee aslaf te doyut waru la boo jëfandikoo loola du wér jàpp naa ne mën naa bàyyi xel nga xam ne kooku daa am leneen lu muy def waaw bu dee daanaka sart yi ñu tudd fi yëpp nag sangu ak ak jàpp ñoo ko bokk mm-hmm. tiim am na ci mbokk ak ñoom am na yu wutee ñoom bu dee duxul waxtu ci tiim ñaar la xam bu dee ci ci sangu ak kii sartu wujub kese la bu dee ci tiim ñaar yëpp la foofu it ndox am ndox mii sartu sixa wujub la bu dee ci tiim saa yi dun taahir lañ koy wootee day am barab boo mën a tiimi waaye koo xam tey misaal amul ndox mu jàppe amul barab bu mu tiimi vingt-quatre heures jil loolu mooy li lëng ci masab Malik ndax dañuy wax ne ñoom laab lii tax jàpp war la laab julli war la day fekk nga man a laab. moom daal soo amul barab ndox mu ndox moo jàppee amoo barab boo mën a tiimee. Ah, ba waxtu wi jeex ba waxtu wi jeex du caage ne da ngaa julli te laaboo. doo sañ a julli te laaboo ñoom dañuy wax ne warut la doo ko fay. ndax warut la. ginnaaw tegoogu ci saw loos. kon amul doo doo doon luñ la gàll. Mm-hmm. mag ñi dañ ko doon misaale ku gaay ne toogal ci kaw garab. Mm-hmm. te fekk jàpput. bu fekkoon bu gaynde tongal daa fekk mu laabit bu julli jotee day julli foofu mu nekk waaye bu gaynde da ko tongal ci kaw garab te fekk laabut te it ñax yi bant yi kenn du ci laab kenn du ci tiim fi mu yor fi mu nekk ndox néewu fi te bu wàccee dañ ko sàmmuloo ba kanam kooku waxtu jiw bu labalee waxtu wa wàcc na ko donte am na yox waaye liy lëng ci ci mësa bi mooy loolu moo tax yem ci loolu day na ci xam la ñuy loolu yooyu daal sëriñ Abdoulaye moo doon sart yi nga xam ne macha am na solo lool ci ab jullit ñu di ko bàyyi xel xam ne laab du mbir mu woyof du mbir mu tuuti waaw jërëjëf sëriñ Mbacke Abdourahmane mu mel ne eh, question bi laaj bi nga xam ne moom lañ doon laaj ci gàgganteku lu leer la ñu aj ko ci surut surut a sarti laab nga indil ñu sart yi nga xam ne mooy yi ci war ak yi yi nga xam ne moo koy wéral ak sart yi nga xam ne day boole ñaar yëpp wax dëgg yàlla gàgganteku nañ ci lu leer a leer a leer a leer fa tabarakallahu kon xam naa ne li ñu def mooy jox la kàddu gi nga tàggoo. ok jërëjëf sëñ Ibrahima sant rek di rafetlu liggéey bi di ñaan mbokk yi ñu di ko bàyyi xel ndax passé la ñi nga xam ne jànguñ ko woon ñu ma a jàng passé la ci ñi jàngoon te fët ñu mën a nafar loolu lépp aw la mm-hmm. te damay faral di wax ne fi mu ne nii lay jeex daanaka mm-hmm. suñu borom ci ndimbalam taw fi xam jàng bu fekkee mosoon naa jafe du léegi kon ku bëgg jàng rek mën ngaa jàng ku bëgg xam man ngaa xam léegi nag li mooy kon góorgóorlu dafay tëj bu amee ay nit ñuy sànq eh, jël seen waxtu jël seen i jumtuwaay di ko def ci luy tax nit ñi mën a xam seen diine ma ko jariñ yow mi nga xam dañ la indil xéewal rek na la naa ne xéewlu nag warta jafe ci kon ñu ngi ñaan yàlla dëgëral leen baril seeni i kem te barkeel liggéey bi te nangu ko jërëjëf li nga wax lu lu am solo la bu soob yàlla képp koo xam ne topp nga GMT TV ci sa téléphone wala ci sa ordinateur ci lépp loo xam ne lu yitteel jullit bi la danañ ko indi ci émission bii di gàggantiku eh, nga xam ne dañuy indi ay laaj yu am solo yu aju ci diine ngir nit ki mën koo jariñoo kon émission bi nga xam ne mooy gàggantiku nag bu soobee yàlla danay am ci weer wu nekk juróom-ñeenti fan yi muy le 9 ak le 23 bu nekk ci weer wu nekk Euh, nii ñu ko defee rek ànd ci ak benn boroom xam-xam indi benn laaj boo xam ne danañ ci gàggantiku kon ñu ngi leen di jox daje ci seen beneen émission boo xam ne mooy aju ci wàllu gàggantiku ci seen seen CMT TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man